meloon ni ku ànd ak Ousmane Sonko ci wàllu parti Pastef bi loolu amee jotoon nañ ci dégg sunu kàddu waaye kàddu yee ñu joxe woon fekkoon nañu am lu ñu nar waaye li tax ñu def ko mooy ñu waxtaanoon ak suñuy kilifa muy taxaw tey pour jàppale président de la république Macky Sall teg ko fu leer ak fu wóor ci bi ñu waxtaanee ak suñuy kilifa waxtaan ak moom ba noppi ñu déglu ko mu wax li mu bëgg ci réew mi ak coppeeku gi mu nar rawatina jëmale ko ci ndaw ñi surtout nag Touba bi ñu waxtaanee dëppooy xalaat mu sàkku ci ñi man ma bëgg ñu jàppale ko ma nangul ko ma waxtaan ci samay kilifa nangul ko ko ci biir loolu nag kon day jot ma wax ko àddina sépp xam ko man nag su ma nekkee ci dara duma ko nëbb ndax xawuma ko waaye bis ni ko tey ñëpp xam ni fas yéene naa taxaw jàppale ko parti ba ma nekkoon doon ko jàppale génn naa ci ndax yu bari nag fas yéene ànd ak moom nag ci liggéey rawatina nag ci ndaw ñi nga xam ne ci laa bokk ci laa féetale sama bopp ma bëgg nag képp koo xam ne yaa ngi woon APR am lu la naqari comme ni ma ko amee woon tàll naa la loxo ñu waxtaan takku nekk benn fas yéene liggéey luy jëriñ dëkk bi te jaarale ko ci moom kon loolu moo nekkoon sama wax sama sama sama sama sama sama position tey dama jàpp ne réew mi ak àdduna moo am jafe-jafe xëy na nag même parti bi ma nekkoon bu ma ci jógee jafe-jafe tax ma jóge ci xëy na am na ci loo xam ne dinaa ko mën a leeral am na ci loo xam ne duma ko mën a leeral ba tax na jàpp naa ne bu fekkoon ni lu am jafe-jafe ñu bàyyi ko fa kon lu bari na sax ci biir jafe-jafe yooyu nag ci laa bëgg a wanee sama bopp ba jafe-jafe yooyu dañ rawatina cëg ci fii ma dëkk muy Tuuba waxtaan ba jàpp ni war naa mën a nekk moo tax ma engagé wu président li man mi ngi koy def donte nag àggul ci ñu ma àgg loxoom mosu fee jub mi ngi doon def lim kem talay kàttanam xam ni nag àggul ci ñamara àgg moo tax mu am changement boobu ngir bëgg li muy def mu àgg ci ñu ñamara àgg ñi ci war a jot ñëpp jot ci te yaakaar naa loolu liñ ci waxtaan tënk ko ci suñu ko ni defee yaakaar naa dinañ ci am changement bu mag fi ma nekkoon li ma wax rek déception ak am lu la naqari xawma ko ma yaakaar benn baat bi la noonu li ci am solo mooy premièrement bu ma ciy dugg tàgguma kenn maa xool waxtaan ak leader bi ba war ci dugg dugg ci bi ma ci duggee ba ci biir it gis naa ci yu bari yoo xam ne ñun ñëpp gisandoo nañ ko man Tuuba am lu ma am it Sëñ Tuuba jàppoon naa ni xat-xat yi mu nekk ku ko nanguwul itam bi muy jeex kenn ku nekk xam na ni kilifa diine yi ci dugal seen loxo rawatina sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal te gën ko wéral te ba léegi gisuma ni li war digganteem ak kilifa diine yi mi ngi koy dox ni mu ware ndax boobaa léegi gisuma mu jël tànkam ñëw fi te ñu jàpp ni ñoo ko ci génne xëy na ma nga leen di seeti man nag awma lu dul samay kilifa foo leen teg ma teg la fa foo leen àgg ma àgg la fa duma ci sori ndax jàpp naa ni kenn ko ne la nga jàpp ni mën nga ko yaa ngi koy def man nag liñ ma soxlaa jàpp naa ni man naa ko te jàpp naa ni dinaa ko def te jàpp naa ni bu ma ko defee dinaa ko réussir lañ ma la ma la ma waxtaan nag ak la ma xam ak fu ma bëgg a jëm damay delluwaat ci li ma waxoon kii rek dama fas yéene jëf ko dox ko ba àddina sépp teg seen bët ndax ci dëkk bi la jëm ci dëkk bi laa nekk am naa lu ma fi xam am naa lu ma fi man ndax fa ma nekkoon itam dañ maa convaincre ci gis-gis ak programme kon su ñu demee ba ab taxaw am sama diggante moom ma jàkkaarlook moom li ma naqari ma wax ko ko sama gis-gis ma wax ko ko lépp mu nangu ko kon du ma def lu dul nangul ko li ma wax ba ca may gis lu ci deñ waaw ñoo ñooñu dama leen fekk ci seenu tool ñuy bay kenn ku ne yaa ngi ci sa di bay ma dikk ci tool bi fas yéene koo yaatal fas yéene koo lëkkale ba ñu àndandoo su fekkee mën na nekk di yëkkatee di dóorandoo di liggéeyal nag loo xam ne mooy jëriñ askan bi mooy jëriñ dëkk bi dëkk bi mën cee gis seen bopp loolu rek moo ci sama taxawaay